waaye dañu am njàqare eh, ak xol buy jax-jaxi ci ñàkk gu réy gi ñu ñàkk eh, al oustaz al kabir Sidi al Amin Niass muy nit koo xam te ni li ñu wax ci moom doy na sëkk waaye nag li war a sorti bi mooy suñu borom dafa wax ni man raa minkum munkaran fal yugayyirhu bi yadihi fa in lam yastatix bi lisaanihi fa in lam yastatix bi qalbihi wa dalika adafu al iman ci xadisu muslim ku gis jigéen lu ñaaw na ko soppi ci loxoom bu ko manee bu ko mënul mu soppi ko ci làmmiñam bu ko mënul mu soppi ko ci xolam nee na ki naqarluwut ci xolam moom na xam ni moo gën a faible euh, gëm-gëm gëm-gëmu moo gën a feebar gëm-gëmu yàllaam ba tax na kon gis ngeen euh, wax dëgg yàlla xew-xew bu metti bii dal ci kaw umma islaamiya bi muy Sidil Amin Niass mi nga xam te ne ñàkk nañ ko tey muy widd bu rëy rëy widd bu rëy ci umma islamiya bi waaye di widd bu rëy ci Sénégal ak ci la presse sénégalaise ak tamit ci euh, culture ak ci l'islam mu mel ni euh, métti na lool wax dëgg yàlla ci ñu mel ni man ñun ñi nga xamante ni mën naa ni euh, participer na bu baax a baax ci suñu formation académique participer bu baax a baax tamit ci suñu suñu suñu suñu suñu ay avenir tey nag desee luñ ko dara loot war a mën a taxaw nañ daan taxawee di wax ci moom lu baax bu fi jógee ñu continuer di wax ci moom ndax dañoo wax ni kóllëre rek ginnaaw lay féete waaye wax dëgg yàlla naqarlu ak mettit lu lool lool lool xew-xew bii am tey muy li ñuy wax xawma lan xawma euh, musée national xawma lan civilisation euh, wax dëgg yàlla mënoon nañ waroon nañoo man rafetal ba ñu denc siid la mi nga sax ñu doog a taxawal lu mel nii ma gis ay waykat ay baba maalak ay waykat ñu taxaw di fecc di musique ci jëmm ju toll ni Sidy Lamine Niass bàyyi koo fi naa am sax bisu seen nit bàyyi koo fi waaye Sidy dafa marqué jamonoom moo tax marqué l'islam ji liggéey lu bari ci l'islam daa ko défendre tey bu fi jógee waroon nañ koo def sax lu mu gàtt-gàtt muy bis boo xam te ni benn bis boo xam ni sax dañ koy naqarlu lu ko ci tiis bi dal ci kaw umma islamiya bi dal ci kaw Sénégal d'une manière générale waaye amul dara lu ñu koy fayee lu taxaw di fecc ak di way loolu lu ñaaw la loo xamante ni képp koo xamante ni dénoncé woo ko dëgg da laa ñorut l'islam tamit daf laa ñorut ñun nag eh, du duñu du ñu wax kenn mu àtte li ñuy li ñuy defal li ñuy wax waaye suñu borom rek moo ñu ci doy sëkk yaakaar naa rek eh, lii nii metti na loolu te tiis na ndax ku toll ni siit la mu ñes bàyyi koo fi fayewuñ ko denc guñ ko sax suulaguñ ko sax far ñuy wax naan dañ koy suul Kaolack wala Dakar pareeguñ ci loolu sax te ñuy encouragé ay musiciens ñu taxaw ci benn place di musique ak way amul lu ko gën a ñaaw amul lu ko gën a metti tamit metti nañu loolu tamit ci ku ko dénoncé wut tamit xamal ne lu baax ñoru la kon maa ngi koy dénoncé di ko naqarlu di ko wax kilifa yi koy def ñu xam ne def nañ njuumte lu rëy rëy rëy rëy njuumte gënta rëy lii gënu koo metti tamit gënu koo ëpp tamit lii histoire du ko fàtte ndax bërki démboo njaay Bruno Diatta bi mu fi faatoo gis ngeen la ca xew lépp am na musicien bu mag boo xam te ni dafa bëggoon a def ab ab concert mais da koo bàyyi ngir Bruno Diatta mu faatu naam Bruno nit la nit moom nit la rek moo xam julit la moo xam du julit ndax yonente bi saa néew romb na ko ñu xaw ko doyadal yonente bi daan ni eh, alaysa nafsan bashariya xanaa du bindeef bindeef la bu dee ab julit nag mu gën a mu gën a mu gën a mu gën a sacré gën a màgg gën a rëy kon ab julit faatu ku daa participer ci l'islam di participer ci développement réew mi faatu amul lu ñu koy fayee loolu taxaw daan dañuy musique ak dañuy fecc ci loo xam te ni xëy na moo nañ ko fomm moo nañ ko def beneen bis donte man musique ak fecc moom jàpp naa ne amul benn bis bu mu dagan waaye lii nii moo nañoo fay siid ña la mi ñes lu bokkut ak lii nga xam te ne moom lañ ko fayee tey am naa ci naqaru xol torop torop torop torop te képp kum naqariwut rek nga xam ni maam lislaam ñoru ko lii nag maa ngi koy jë jëmale ci kilifay réew mi ci kilifa réew mi mu xam ni juum na njuumte lu rëy rëy rëy ci lii mu def tey juum na ci njuumte lu rëy loo xam kenn du ci ànd ak moom tamit kenn du ci ànd ak moom nit ñuy naqarloo li wahabiste yi def bis bu set di naqarloo li xam te ne ñoo bokk ci biir lislaam ji li ñuy def bokk tarixa yi li ñuy def bis bu set noonu la ñuy naqarloo mbir mi kon di ko naqarlu di ci di ci di wax ni dinañ ci dinañ ci def luñ ci mën tamit ci wax ci ndax wax rek lañ mën mënuñu leneen duñ jël nga naay di xeex duñu reyaate waaye nag wax wax diñu man nañ ko def ngir naqarlu ko kon ñi ngi am naqar wu xol wu méttee méttee métti di ko dénoncé di ñaan tamit képp koo xam lislaam ñor na la arab ñor na la maanaam langue arab ñor na la Euh, lu baax ñor na la nga dénoncé ko même bu dee sa page Facebook tamit nga dénoncé ko ndax lii amulu ko gën a métti amulu ko gën a tiis man de maa ngi koy naqarlu ñu koy def tamit maa ngi leen di wax ni def ngeen lu ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw lu naqari loo xam te ni neexut yàlla neexut yonente bi neexut Serigne Touba neexut benn xa tamit kon nag mbir maa ngi noonu ñun ñëpp ko gisandoo muy naqaru tiis wu rëy woo xam te ni ku naqarlu wut euh, euh, ak naa féq moo ne ci yow ndax bu dee ab musicien sax booyee